tàngal bége indi na lu bees tàkk muy tàngal bége menthe fraîche fas yéene ànd ak ci weeru koor gi waaw waaw cafka menthe bu neex te sell ñu defaree ko ci anam yu mucc ayib tàngal bége menthe fraîche rek kenn du ko jaawatle te ku nekk gis na ci boppam dana dem ci bisaab dem ci ataaya ak was wala mu doon tàngal bi ngeen tàmmu ngir am une haleine fraîche ramadan mubarak ak seen tàngal bége menthe fraîche tàngal bége menthe fraîche une fraîcheur unique weeru kooru ren jii kenn duma gën a gore xam naa ni dina def li gën ngir teral samay nawle ak Punch rek kenn solnatul nañu yàlla dolli yiw dolli ñu yërmande dolli ñu baax ñu gën a laabiir gën a yaatu yokku teraanga yokku jàmm ngir weeru koor ku xéewale ren jii Punch moo ànd ak yéen ngir seddal seen weeru koor ak Punch rek teraanga fii la fekk baax. jaay dolli ma fu mu jëm ak ñun indi na mbuusub caakiri de jóg leen jóg leen jóg leen ay caay caay caay caay caay. dikkati nañoo dikkati nañu. ñoo ngi nii. dolli ma mi ci potu caakiri bi. dafa woon ne. muy mosali. ak ñamali saa yu ñëwee neex mosali ak ñamali saa yu ñëwee neex dolli ma dolli ma caakiri dafa ba dolli ma dolli ma caakiri dolli ma fu mu jëmate ak ñun andi na potu de jóg ay ca ay ca ay ca dolli ma caakiri dafa over neex tooñkat nga yow yaa tooñ. lan la non dafal nag rek yande dugg naa ci biir mu wax ma li ngeen jote yëpp waroo ko fekk fii mu toog nga koy attaqué. pare nga non pareegu ma def naa constat bi bi ma waxee te ma tëb rek ñëw attaqué la de damaa toog ma xool yaa génn sa néeg mi ngi toog fii nga génn tracé jéem nga dugg ci néegam sax yooyu yëpp def nga ko nga ñëw fii di ko attaque xuloo su amee wax day am tey waroo wax. waroo wax. yow man ak yow kan moo warul wax. mais yow yaa warut a wax. yow yaa warut a wax non benn mbay bi yaa. da dem ñu sol la. ah nga ne léegi si man nga koy xippi. kan moo ma sol. sa jabar yow yaa tooñ. nan laa tooñee non yow yaa tooñ ndax muy jël caabi robinet bi di ko denc. waaw mais su man war naa sangoo ndox bu sedd xoolal sama yaram bi war naa sangoo ndox bu sedd. si si loolu moom dëgg la waroo sangoo ndox bu sedd mais waroo koo attaqué xeex bu nekk xeex bu nekk daa am ku koy déclenché te yow sax xeex bii moom yaa ko déclenché. yaa ngi jeng. non jengu ma weer. wuy ma eh. dafa nekk jabar may jabar. waaw wax waxal loolu nànk jabar bi wax ko nànk bàyyi suñu waxee rek nga naan ay jabar ak jabar yow waroo bëbal loolu ci kaw. kon léegi lu tax ngay dem mu lay sol ngay ñëw si man. non foog ma attaqué ko mu xam ni man mu xam ni damay yaa ko tooñ yaa ko tooñ. loolu yëpp ma wax. non non non non bul wax yow jeng waaw non non non da ngay jeng. jeng ma bàyyi jeng si bëccëgu koor. waaw ah, wuy ma defal ci weeru koor waaw defal nànk ma expliqué la. Penda mbay sunu dil bii bis bu bis bu sottee xam naa ko dafay tàngal ndox mu sedd sotti ma ndox mu tàng sotti ma ko yow doo def nank rek maa ngi jéem a régler beneen appartement pour yóbbu la fa su koor gi jeexee nga dem fa may ñëw di ayesi bàyyi loolu dimbali ma. kon na réglé. waaw dina réglé mais yow tamit. réglé yow tamit réglé fi mu toll nii buggoo ludul buggoo dul yokk affaire bi déggal li ma la wax. du ma sa morom non non Hmm? da ngay waxee ndànk non damay man maay dóor nii rek. maa koy da ngay waxee yuuxu. waaw non maa koy dóor pour Yandé xam ne maa ngi wax ak yow. Yandé du sa morom man xam naa li ma wax dégg nga. je t'aime namm naa la nag barke yàlla xam nga li wax ah, ah, hmm. man li may sama xel bu doon loolu laay dundee man tekki naa bu yàgg ay rêve yu cool laa yor koy gis nii. <laughs> di gis xaalis nii nii mënu ko téye yàlla wax na soo tey suma waay. xanaa dugg ci kan. nànk nànk nànk. xale dañuy gas rek dañuy gas rek fu nu jot gas. du kan imbécile yi nekk fii ci kër di xeex ndax caabi robinet. ngaa la laay yëkkati rek daal di def faux pas daal diis gan la def. am na âge boo xam ne boo fa tollee yamal ci wax wax. waaye histoire bi bu réagir bu dem. ma ko te seetaan histoire. bu dugg bu dugg amatoo énergie bi dan lay dem massa ak baal ma yaa ngi tane wala téléphone fruits yi quelques fruits lañ lay jox pare nañ ci yow. ba ba damp nga ko. waaw bul bul laal xoolal mu saddee xoolal may ma am naa ci expérience. laal may ma lii ngeen. bul laal bul laal bul laal. yow Seydina Muhammad may ma lii. tulukunu laa ciy def tulukunu. moo ci dama ko mën may ma lii. baax may ma lii rek ba ucca. ah xoolal ma ay. damay dem. waaye léegi nag boo ma dammee fii ma ma lay wàccal fii fu fu ñu jëm. mais li jug ci de. dugg dugg ma ne. man waa bàyyi lii. ban ma du ma ko laalaat. bàyyi lii maa mënta gis fa xaj. fa xaj laa mënta gis na man bàyyi ko noonu fa xaj laa mënta. bàyyi lii rek am naa sulukunu du ma kii ah, nii nga yor nii. kii médiateur bi la mooy médiateur kii. boo toppee tàng boo ko toppee da nga ko màcc de. man du ma ko màcc kii médiateur bi la. waaw léegi. defal naa ko sama lan mooy problème bi ba lii xaw. kan moo indi coow li lan la. ndaamali rek. ndaamali ci kër gi moom laa xamoon ban façon nit la. ndaama lan. ndaamali ci kër gi. lu xeet li waaw lu mu def. yaa bureau bi ne de la doon laaj jeeg. ah jeeg lii nii mu bëgg koo ñëw ca kër ga ma ne ko nag loolu nag du ma ko seetaan. foog naa ko ba dugal ko ci biir. mu dellu si waat nitu diine la. isu bëri histoire la nga naan nitu diine gaaw a tooñ boo ko tooñee mu baal la nga tooñaat mu baal la bu ne bët day ñëwaat moo tax man de di daa oyof tol waaye ba mu ko nii champet ki ni sellew ci sama sama sama sama sama sama kii pancréas bi fii hmm. oh doo ko laal ah yàllaa ko def noonu waaye ki tooñ waxoo ko ku tooñ kuy wuyu bi mooy njool mu ndaw mi sëll sa kaw. li jaay dëkk suuf ci loo nekk. ah jànk ndaw na def. jàmm marché te ñëw. jàppal ma gàmm jàppal ma gàmm balaa moo bu ma bu ma la la ci kër ah booba léegi seetlu naa ne jàmm amatu fi aha yaakaaroon naa ne bu mu la jëri la ci kër waaw bu soo doon di ñëw te booba léegi ah. jàppal fii jàppal fële foofu coow guddi coow bëccëg moom lanu ko xamee eh waay <laughs> ma tuuti. man Yande laa tudd. waaw sant seen. dëgg ñu nekk ci weeru koor. Mhm. man aw ma ñàkk fayda. Mhm. ak manqué ba benn paa bu perte. Mhm. tëdd neuf ans de prison. sàcc rey nit sax def nga ko. kon man aw ma benn temps ci naaj bu tàng bi ma ne damay toog di wax ak yow yow yaa ñàkk fayda yow yaa perte yaa manqué sa moustache di mel ne mbombu cin nga ni man jeeg bi. man mi nga xam ne man la sama jéeg sama góor jël teg ma ci biir këram ah. may gérer di luye di fay location yi du moo la metti location yi fii lay teg ah. ma koy fayeeku sa sa jarbaat du fi dugg sa doom du fi dugg oh. te yow sax nag dama lay appal délai gis nga kii dama koy appal délai hmm. doom jaru ko dama may ko jéggal ko may ko may ko su may wax ak yow ñëwal nga paa bu fay fayda su may wax ak moom damaa bëgg mu di ma xool hmm. damaa bëgg nga di ma xool booy wax ak man ñëwal am nga fulla may naa la ko xool ma nee naa la man njool bi ci kaw mel na ma war a mel man benn paa bu manqué du wax ak man mhm. xam nga lan laa la yëgal nag boo amee sa sa ñàkk fayda mhm. ak sa ñàkk jom nga yemale ko ci say nawle ndax man du ma sa nawle ah. Mhm. sama jëkkër du sa nawle. point yaa manqué. Mhm. yaa perte. féticheur féticheur nga demal demal demal demal. maa la jéppi demal parce que ci yoon nga nekk ci yoon nga nekk demal sama xol dafa neex. ci yoon nga nekk nee naa la jéeg bi jëkkëram bëgg. dëgg la jéeg bi jëkkëram teg ci kaw. suy wax ak yow. day avancé ni jaay dugg si jàppal ma loolu. yaa ba yaa soog ñëpp yaa ngi def lu baax. ma ne su ma xamoon ne moom ngay gaarawaale man mii du ma ci kii sama doom la ku baax la ci man am yëg-yëg ci man su ma xamoon ne nii nga mel du ma ci dugg féticheur la te mosoo ko xam ci àdduna maa la déeli tay man féticheur barke man féticheur yow yàqateer nga mën man yow yow doo dara waay xoolal fétis xoolal da ngay a waaw waaw xoolal dem bi dama dama ba tey yow léegi la mën a dem ba tey ba tey par force da ngay soox par force nañ parier nañ parier da ngay soox nañ parier da ngay soox mën naa bañ a soox de demal damay soox demal man moom ci kàttanu yàlla ak mbaaxam kër gii li ma li ma fi bëgg naa naa ko am doom raam. Dolima Cakri dafa over neex